Abati na madumi na kadam maraba sunyata kunda la la la yonent bi mujiba daawati mamlukin waraak kibanal himar aida dil awjaa'i wasaani kado ida amarra Wow, wow, you. يننتي بملازم الجوع بالأحجار منتصرا لكن ذلك ما قد كان من يقم ايوه ايوه يننت بوا ما يجيب شفيع الخلق داعيا إلا بلبيك في ترعيب الجمال كانوا إذا مر الرسل يا قد بدأ yonent bi wal kafuma barabat kullu san wala dhakaral ma khadiman من عيب ولم يلوم والكف ما ضرب أنسا ولا ما خالما خاب من عيب ولم يلد وصلي يا إله عن أبدا أنا محمد المختار ذي القدم وصل يا إله Who are you? كربتين عظيمتين من كل وجل الله وصليا يا إلهي وجزيا أبدا أن محمدا المختار ذي القيد أجنا يا أن محمدا مختار بالقيد محمد الأمين كنز الكرم محمد الأمين مولانا أمين كنز الكرم محمد الأمين مولانا أمين كنز الكرم كصبيان لخيتك كنز الكرم مولانا يا غريب كنز الكرم I Maulana, Maulana, Maulana, Maulana, Maulana, Maulana, Maulana, يا رسول الله كنذلك يا غير خلق الله كنذلك أيوة كنذ الكرم مولي نعمي يا ذي الأمم الشريف نبي أذكى نصبي أعلى العصبي كل

gor googu fexé ba ñu daan fess grand place ya ñoy lan mbalaanu wasifa yahudan hudan fexé ba ñu daan bokalé di wétal yalla hudan mo fexé ba ñu xamul woon nek ay borom xam-xam hudan mo fexé ba borom xam-xam yi gindé ko hudan gor googu mo fexé ba ñi nga xamanteni ni bi ñu amé xam-xam daan nañu wut aduna ci lañu am mu fexé ba ñepp di wétal yalla hudan ah wa rahmatan nak mu fexé bu ubbi xol yi def ci aynu rahmati rabbani moy muhammad yaakaar naa boobu de wa wa rahmatan wa rahmatan aynu rahmati moy seyduna muhammad allah ya, moy rahmani moy rahimi waaye aynu rahmati yermane waaw yërmaande yàlla aji yereme waye application bamuy jël di ci yeremate moy aynu rahmati moy muhammad application bu ñu wax rahmatul lil alamin moy sirna muhammad yalla ko muy jëdum ci la la yërem waaw kon yalla kon seydou hadji mari mom amel nañ ko ay reer yu bëré bëré bëré mbir nak dina nit dina def dina def dina def loxom ci mbir ta kamu xam kamu xam muy wote ci mbir ma ko tax di def ci mbir ma mustafa amna ñu ko gëm bañ koy gëm seen xel bayiwuñ ci yalla mustafa lañ xol lek mu neex leen ñu gëm ko kon aljaamiu wal jumaatu wal masajidu lillahi jàkka jeeg jumaa ji moo yàllaa ko moom waaye am na ñoo xam ni nag wax dëgg yàlla bëgg alaaji malik moo tax ñu def seen dërëm ci jàkka ja bëgg alaaji malik moo tax ñu def seen dërëm ci jumaa ja waaye ibtigaa wajhillahi seydna omar xataab bi ñu defaraatee jàkka ja gaa yi ne ko ah yéen li ngeen def ci jàkka ja bëri na déedéet mu ni kañ annal mu ni ni seydna muhammad wax na man banaa lillahi masjidan lillahi kep ko tabaxal yalla jakka jakka ja lu mu cher cher fi yang koy def ngir yalla am nga ci cërub yalla te itam ki joxe deureumam ki joxe milliard ak joxe wul milliard Abdourahman ibnu Auf, sayyidna Muhammad dafa wote ben fundraising comme ni def ni di laajte dajala khalis Abdourahman ibnu Auf, fi ñew jox sayyidna Muhammad ti misal 4 milliards niko 8 huit 4 yi bàyyee wa keur yeneen 4 yaangi ni nii yaa ko moom def ko ci yoonu yalla maluka laka wa malu ghayrika li ghayrika wa maluka li ghayrika mune alal ji nga mom moy sa alal ñu ne jan alal nga mom moy alal ji nga jël doxal ko sa ak sa borom ndax yalla ne wabtaghi fi ma ataaka allahu dar al axira wala tansa nasibaka min ad-dunya li nga joxe dépasse ñu lek ko yag wa kër ji fi la yam ci aduna waye li nga jël joxe ko ci jumaa ji bo démé ci kanam yalla fekk ko fa comme que yowmal qiyam nak yow mi ñi nga doon jox dépasse ci bir kër gi kula ci ñëk gis day daw ah kon war ngaa bàyyi xel la ngay joxe ci kanamu yàlla langa xam ni boo dawul dem ca mu daw ñëw ci yow na Muhammad bi mu dajee bi mu wootee milliardaires yi joxe am benn maire ndeysaan ci misaal dama dégg rek bàcc wax ni bi bi ñu xoolee dox mbokk yi bi ñu ubbee ji mbuus yi am na mbuus moo xam ne mbuusu caaf lañ fa fekk mbuusu caaf est-ce que mbuusu caaf boobu de xam naa ni ah aka texe imaam imaam Asan yaa ñu ameel caaf waaw xam nga lu waral loolu bi milliardaires yi joxe seen alal benn maire ndeysaan xool xool amul lu mu joxe mu dugg ci biir mande magasin gësëm gësëm amul mu ñëw fekk benn kopp ci bopp laal bi ubbi kopp bi nekkate ay tàndarma la jënd joon fàtte ko yow koŋŋ ndaw si dem jël tandar ji raxas ko bam set ñew talal ko yonent ya, bi sallallahu alaihi wasallam bim ko talale ndol makka niko ah ku ne am na limu jox ki ne ku ne joxe na lamu am waye man lila am mang ko joxe na ngir yalla munafiqin yi ki dal mo meuna mën beug ko ko tuddu rek waye wax yalla tandar maam ji muy joxe eh? ak ci kanam milliardaire jarul muy ñew yalla yoni jibril niko li ñu def nak ñoko gis waye man xebuma yemuma ha ni alladhina yalmiduna almutawiina min al-mu'minina fi sadaqati ah walladina laa yajiduna illa juhdahum fa yasxaruna minhum saxira allahu minhum wa a adabun alim waaw yarmiduna almutawiina min almuminina yaa ngi gis koo xam ne ma ngay joxe dërëmam ngir yàlla yaa nga toog fee di ko sànni xeer naan fi nga koy def jaru ko ah fa yasxaruna minhum ndax yaa ngi leen di sayite naan fi ngeen koy def jaru ko li ngeen di def jaru ko yàlla mu ni saxira allahu minhum li ngeen di jekkoo gaay yi ba leen reetaan ëllëg noonu laa leen di tegee ci kanamu gaay yi torox leen ñoom ñu leen di reetaan ah kon tabaarakallaahu ki def dërëmam li may wax toujours ci jumaa ji sa dërëm ak sama dërëm ak sa dërëmu moroom moo indi jumaa ji fi mu ne ku defoon defaatal ku deful woon defal ku defagul woon tey waaji def boo nga def balaa ñuy def di def te doo am foo def wax naa ko de gàmmu gaa ngi ñëw ku dagg sa paas jëm Tiwaawan xam nga ni moosin sopp alaaji maa ngi nga dem Tiwaawan wax naa de ala azimu laylal wilaadati nga dagg paas wuyu seetu xaaji Malick ngir màggal guddig yonent bi waaye nga nafar sa bopp nafar bañ dalee laaj ngir jumaa ji ba léegi dafoo ci sa dërëm wala nga am kersa dugg Tiwaawan nag ah bu ñuy màggal guddig yonent bi nga romb sa buntu kër romb sa buntu maam dem ëttub seydul xaaji Malick sa cofeer ci moo doo ko waral wax naa dëgg de waaye ñu wooteel Maodo jumaa ji nga xamante ni bii moo ko sampoon xalifa bi yàlla na fi yàgg ci wér waaye loolu nag du njombe de Maodo ko jàngale bàyyi ko fi su mastaral mir badal ma ma mawsuufu maajilatan min maali siddiqihi boo jàngee bayaan dañ naan yulaabisul faila wal mafuula wa sababal fiala fail maquula buñ ne sëñ bi tabax na jumaa ji sëñ bi du maçon waaye bi iznihi ci la tabaxee jumaa ji am déet waaye Maodo mu ni bañ demee njol Makka mu dem fa mu wàcc ca Madinatul Munawwara mu nekk mir mirbadal hanami di weeru waayu tàndarma sëhlu ak suhaylu moom ko Seydi Haaji Malick jàngale ko waaw Maodo nan la ñuy def ba mu Moustapha jël suuf sa jël teene ba ndax daa yóbbaale woon xaalis mu ne summa stara al mirbada kan mooy al mawsuulu muy Seydina Muhammad Maodo xilaasam bii ku yaakaar ne grammaire rek lay jàngale boo deful ndànk di nga dellu sa kër grammaire ah <laughs> waaw summa stara almirbada man alladi stara almirbada mu ni almawsuulu mu jàngal la grammaire u ahlul waaw naxwul qulubi dafa am almawsuulu alladi yusiluka ila rabbika loolu moy al bi nga moy mooy grammaire wa tasawuf waye bu nekké nak grammaire wa grammaire ni jang littérature wasilatan in ghayruha lan yu'lama wa an yuqarrara wa an yufaxama côté bobu lañuy jangalé waye mo do tay ji dafa mbass gaay ni su mashara mu jënd almir bada fañ daan wër tandarma ga almawsuulu ki yalla indi pour mu jokalé gaay yi si la jumla day don lay don ay damir lay don lolu gaay ko jangalé almawsuulu tax mu jàngale ko lu jënd ko mu jënd ko mu ni maadilatan ngir maandu ndax dañ ko doon bëgg a may mu ni déedéet yëguloo ni Seydul Xaaji Abdul Aziz Dabaax buuru Marok newoon na ko damaa bëgg nga jox ma jumaa ji ma defal la clé mu ni ko damaa bëgg ku for dërëm def ci buñu demee ca kanamu yàlla bu borom milliard di fayee ko borom dërëm yi fayee xalifa bi nag loolu la kon min maali siddiqihi kon bi himmati siddiqihi ci yitey siddiqu mi nga xamanteni ni mom mënu ñu tuddé tuddee seydna aboubacar siddiq waaye waqaama fi maqami siddiqina moy sayyid babakar si mouhamadul mansur khalifatan li rasulillah wa khalifatan li ahmad tijani kon min maali siddiqihi bi himmatihi wa bi duaihi wa bi sababihi ci ñu jog fasiyene taxawal jumaa ji kon ko defon defatal ku deful won defal ku defagul won defal ku don waaja def defal wax naa ne nag jumaa ji nek ci béton ak ciment mo gëna wor nek ci peinture juma ji nek ci ciment ak béton ak fer mo gëna wor nek ci peinture peinture day xoosu bu nekké da nga nek bañ tollu ci peinture nga joxe dara dañuy xoosaale bu ñuy xoosaat peinture bi dañuy xoos la nga defon rek ko ci defon fer nak mom fi ak juma ja nga taxaw muy taxaw kon boye bo ngeen gaaw imam Ali musa Samb suñu woy ju suñu xarit suñu soppe jotaay bi yëpp mooma xam nga yàlla inna allaha ashtara minal mu'minina anfusahum yàlla boo jaayanteeg moom boo ne ko boo ne yàlla d'accord naa ci njëg gi faaw mu teg la loo xamante ni bii boo dëgërul ko fa xaar jumaa ji li nga ci dégg gën dégg ko ci dox mbokk gi yaakaar naa ni yow yaa saraxe sa ginnaaw gi moo tax dox mbokk juddu dox mbokk gi juddu dox mbokk gi yaa saraxe sa ginnaaw xamlu adal wara chënu rijalillaahi kada fal yakun man lil ilaahi tashamara ku jëm ca yàlla faw ñu faaw nga dajekku naan la bu fi jaar du ko fi doone bu mu fi sottee waaye nga gëmm rek mal fa nga dëgmal waaw ndax nag yàlla suñu borom subhaanahu wa taala bi xasabil kaddi tuktasabul maali mbirum yàlla ku la ca gën a sonn ëppale la ca waaye yaakaar naa ne jumaa ji buñ ca taxawee incha allah ba cay kabar yàlla na la fekk ñu fi fekk ci xalifa bi ñu dund ci dund ci ay ati at yu yàgga yàgga yàgga yàgg waaye buñ kanamee sa kanamu borom buñ taxawee suñ kanam borom subhanahu wa taala ba yàllay décoré Seydou Hadji Malick Maodo di woo njabootam gi ba egsi ci sëñ Babacar Mouhamadul Mansour mi nga xamante ni jaddada ma jaddada min al jaamia wa bima ah min rusumil masajidi wa qawama wa aqama al qawaima wa qawaima al masajidi wal bu boobaa déclaration bi wala décoration bu wax dëgg yàlla dinañu ana alaaji Alioune Moussa Samb léegi nag bi ko daje bii dañ ko daje woon tey muy premier versement premier versement waa dox mbokk bu ndakaaru Médina Faas Colobane Gueule Tapée Fann Ok Dakar Plateau ci ndigalu imam ci njiitu imam taxawaay ñoom imam imam Assane Fall tabarakallahu imam Sëñ Mansour imaam Ali Moussa Samb ak ñoom Asmani ak waa jamaa atul nuur yëpp Pape Amadou Diouf ci taxawaay bu rafet bi gars yi fan lañ tollagum. 16 millions 500. 16 millions 500 mooy premier versement premier versement 16 millions 500 wala ci doy waar mooy bañ dalee woote jumaa ji ba tey Aliou Moussa Samb ak waa grande mosquée chaque ajjuma weer wu ne ñu joxe un million. weer wu ñu joxe un million xaw ma nag moom imaam li ngay compte ko compte boobu ko war a boole ci ñun waa na wala imaam day dem individuel <laughs> waaye waa jumaa ji moom ñëpp a ko bokk yàlla yàlla nangu moo tax mbokk yi ku deful woon defal plateforme yaa ngi noonu Wave yaa ngi noonu Orange Money yaa ngi noonu képp koo xam ni fas yéene na ngaa sañse bokk jënd dix mètres bassin dem Tiwaawan sañse sol jes neer ni sañse naa waaye góorgóorlu boog nga jël benn dix nga ni xale étudiant dañoo bëgg sañse ko ci évaluer bu la rombé bo defu nang solna 200000 ah maxane mi ngay sol bo defu nang yang koy jënd ñaari jundi way dama na nga naan maxane moom wax dëgg yalla tay dama jënd bo yof bima ma noon jënd ñaari jundi def na ko juma ji wala nga ne manakis 25000 la mille jënd na jënd tay bu 15000 bok jël 10000 def ci juma ji ah wala bu nekké bo démé juma ji da nga na a togg ay boo demee da nga wara togg ay tufeeg ay mishwi tabaarakallaahu wàññil doos bi rek li nga waroon jëli condiment yi nga def ko ci jumaa ji tabaarakallaahu yal na yàlla def jàmm yal na yàlla def tawfiq yal na yàlla mottali di kontaan ci jotaay bi imaam yal na yàlla fay leen imaam Assane Fall taxawaay rafet na sëñ Mansour taxawaay rafet na waaye ndax yow moom da ngaa wane rek yow sa maam Seydou Hadji Malick da nga koo may sa bopp may ko sa temps may ko sa yitte may ko sa lépp ku boo toogee ci mbooloo bu ñu waxul ni Maodo sa kenn du ko xam te Maodo sa la nag ñaari yoon bi qiblatayni la mam Bachir Ñang soxna Faat Seydou haji malik, ya ayra Ñang soxna Ummu Seydou haji malik, ah lol doyna martaba waye mu jël lepp jaay ko jëndee ko taalibe yalla yalla fay len yalla yalla barkel jazakumullahu khairan kaddu yi dal dama ko don bañe ñak munu mënuma ko dama ko don bañe sax imam Adama itam kat baxna num tuddu mo ni Abdoulaye Sylla Abdoulaye Sylla Ecotra Ecotra borom C50 borom C50 yónnee na moom nee na dana dugal deux millions Cheikh Seck moom yaakaar nañu woon na ñu ngi koy xaar ñu ngi koy xaar kon mi ngi ci yoon bi am embouteillage beku téye nee na moom kat sa sa kii waa jii nii Ablaye Ablaye Sylla nee na moom rek ci seen dox mbokk waaye moom jógu boppam nag moom jógagul macha allah jërëjëf tabarakallahu Bamba Fall lu mu leen wax maire Médina joxe na te itam nee na nee na mi ngi ci pareegul dina continuer collecte bi dina dina gën a mobiliser ay bokkam ak ay gaayam ak xamee mu gën a dugal mais li mu joxe nag moom li mu joxe moom moo ko joxeel boppam en tant que Bamba Fall waaye muy un million cinq cent mille waaye nag bu jógee nag ak moom ak ak ñi mu àndal nañ gën a yokk seen loxo Cheikh Tidiane Seck moom bazoolun la bin nawaali du moom fii ku lexinin wa awaanin moom ma ngay joxe moom xam naa ne assis moom assis joxe waat na fi assis joxe woon na baatam dina dina joxe waat fii cheikh ba cheikh ba joxe na cheikh ba na ñëw moom tamit ak ñoom nguuda jén ak seeguñu ñu ngi ci yoon wi waaye waxoon nañ leen dinañ joxe en ah, tayaar sambu joxeegul en ah, tayaar kon daa ak seegul waaye mi ngi ñëw en <laughs> ah, lu à premier versement bi daal moo ngi noonu kon deuxième versement bi kon ñii ñu tuddu ñëpp xam naa dinañ jugal ñoom bu ko defee bu boobaa ñun ba la ñu jóge fii nañ am lu mu gàtt gàtt xanaa boog un milliard ah moom challenge un milliard la dañuy dem tànt fële ca boulevard ba woo fa waa àdduna ak waa Sénégal ñu daje fa ci ngiitu imam incha allah nee na sous préfet sous préfet Jibril Diallo nee imam nee na ñu ngi koy gërëm nee wuute na a ñëw waaye responsabilité waaye nee na altine nañu ñëw ci biroom buñ ñëwuli da ko na ko indi rek affaire moom na ñëw rek déplacement yi sax tax ko bëri na xaalis ñëw rek yaa yàlla def jàmm ku mënta ñëw daal yónnil waa ji jazakumullahu xeyran asir jamiaha bi duni kaddin wala masaxatin bi jaahi ahmadi waxfir lana waxfir liwalidina walmuslimina rabbana amina بيوم الاثنين أو الجمعة أو أي يوم من أيام الأسبوع وسرها يا رب فاشف علتي وبخريش يا رب وكن بجاه عبدك ونبيك سيدنا محمد الفاتح لما أهلك والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم صلاة توصلنا وتعرفنا بها إياه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 سن لخي شك وعلى النبي وعليهم أجمعين سلام ربنا جاي